Xaadim maa ngi lay fay naka yitte yi tarkaala axlu làmb tey amati wax ci Père xanaa ñaanal ko rek yàlla yërëm ko yóbbu ko ci àjjana ya gën a kawe yàlla na ko yàlla atte ci yërmandeem jàmbaar la woon teewal na Sénégal fu ne gëmoon na boppam jël na ay xele ubbi école de lutte jàppale leen ba Sénégal gépp gis ko donc ñi ngi ñaan àdduna bi yëpp képp ku gis vidéo bi daal yaa nga ñaanal ko Balla gay 2 Balla Gaye yàlla yërëm ko xare ko àjjana bu baax a baax a baax daana ma woo bëgg xale yu bëre ma jàppale leen ñu bëre jaajëf ba tey ñu ngi ñu ngi ci axlu waa axlu làmb kii nag kenn mënu koo wax du wax làmb ba da jonn père maa lay waaw ma maa ngi lay fay ah la masawu di leen wax it sigi leen ndigaale li ñu bokk di ko jaale it Sénégal yëpp àdduna yëpp ak monde lam parce que bala gay nit ku baax la nit ku gore la ah xaj na nag àdduna ak lii moo ànd parce que lii lépp yàgg moo ko waral parce que boo fi yàggee moom baay dina la fi bàyyi maam dina la fi bàyyi bàjjan dina la fa bàyyi mais loolu yëpp yàgg ko waral xaj na fi mu toll nii nit toll na fu ko gën a gat gën àdduna mais nag am njëriñ ga mu am njëriñ daanaka moo moo waral métit wi mais moom nit ku baax la te kenn du def lu baax di ci am lu bon tey it servir na làmb parce que bu ñu nee moo fi njëkk a ubbi école de lit di jël ay xele di leen yóbbu ci mbapat yi di dox bu di heure bu ne ay doomi jàmbur jàpp bu doo am na ñoo xamante ni seen doom rek la ñu mën loolu xëy na tey boo ba ñooñu suqali ay famille di dimbali ay nit doon ay nit ñu baaxit parce que yar dafa am solo gis nga ko ci mel ni balagay Gaye rek da koy xool li muy dimbali ci ay nit ak baax gi mu baax te xaj na bu fekkoon ni bàyyi na ko xaj na mën naa mel neneen looloo tax yar am parce que nit ki mën nga ko may alal nangu ko mën nga ko may lu ne nangu ko mais boo ko joxee xam-xam mënoo ko nangu man am na maag moom relation parce que dadaa ñëw sama place ñu ànd dem mu éviter ma RTS yu bëri ci ay événement yu ma doon def fii Dakar ak Bawol mu doon koo xam ne dara dara méttiwut ñàngalut dara li métti nit ñi ak li ñàng ci doomu aadama yi yëpp moom du nekk dara ci moom te daanaka baax moom loolu lay jëriñ te xaj na gis nañu ko ci ay interview am ay problème yu bëri loo xamante ne nii dafa war a nekk problème ñu dik daal kawam mais da koy seral ba mu set ba nga xam ne même nit ñi du duñu am lu ñu ci commentaire du ko def muy dara te loolu yaakaar naa jikko yu baax la te yaakaar naa yonent bi ba nu koy tàggit ci jikkoom la ñu ko tàgg parce que nee na nu ku la gën jikko rek moo la gën mën ngay julli jàpp di def lu ne te sa xol baaxul sens ba bëriwut mais bu sa xol xasee baax rek daanaka sa lépp baax na tey axlu lamb amati naqar Père Balla Gaye ngir su ma jumul sa célébration la. waaw waaw ñu metti ci lépp. di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana si barke yonent bi. am nga relation. waaw sama sama grand sama waay la école de lutte bi ma taxawal. moo la ma déglu ara taxawal école de lutte bëri bi nekk si yow nga def ko si ñoom waaw loolu moom si boppam moo ko wax ne ma ba si kanam rek di xam lan laa lay yàlla dogal na tamit gis naa ko. loolu ndax maa ngi koy ñaanal yàlla di ko sant di ko gërëm waaw parce que bu mu feebar yëpp ñu ngi diggante téléphone ak lépp waaw am na lu xam ne lu baax rek bu koy def doo ko wax waaye sama ganaar la daal sama waay la sama ganaar la ku baax la woon ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla yërëm te yeexañu di di wax wawaal yëpp ñu ngi leen di sigini gaane ak ñi mu fekk ñëpp ñoom tubaabu joor ñoom daawuda faal ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla xale na àjjana firdaws si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi nekkee koo xam ne ci làmb la bokk ki mooy Jamaïcain du du ñu ko présenté axlu làmb amati naxar ngay bokk ci làmb bokk ci axlu làmb tey lan nga mooy wax ci Père Balla waaw daal référence ci réew mi tey nag dëdd na ñu ngi koy ñaanal fi mu jëm gënal ko fi mu jógee suuf sedd ci kawam dem doon naflaayam yal na ko sëriñam ràmm ci àjjana yi gën a kawe ndax koo xam ne la bëri na ba tekki ngembam dajale ay xale yu ndaw formé leen ba roi génn tollu niveau bii nii Baye Balla daf ci bay waar Baye Balla ak RTS Baye Balla ak seen national. waaw fépp ñu ànd ceeg moom yàgg ko suivre mu nekk kilifa goo xam ne def na lu nekk ci làmb wax dëgg yàlla référence ci réew mi référence ci monde làmb moo tax tey bu demee nii gis nga li mu am nii du ñëpp koy am. yombul njabootu làmb yëpp wuyu nañ ko ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana njaboot gi mu fi bàyyi borom bi taxaw leen. amoon waaw bi mu nekkee euh, seen national ay auditeurs am la yaa ngi dégg chaque samedi. mu nekk koo xam ne kilifa koo xam ne fu mu ñu gis ñuy conseil jom leen seen bu liggéey leen kon moom loolu daal mën nañ ko seede si moom. champion maa la ziar. delloo ziar. loo mën a wax ci Père Balla. waaw Père Balla moom kontaan rek parce que bis bi ku ne ku ne fi ndool nii kon ku ne ku ne bu déggee ma ni kontaan ñu dégg fi mu waxee bu baax kenn ku ne bu la leeroon tey boo génnoo àdduna am lii danga naan man teema arrêté sama jaamu yàlla yombul de lii yombul de kon Père Balla dafa dem boo dëdd ñu woon ñu ginnaaw kon dañoo nax ba dem. ñu doog ko gis lii. bu baax a baax relation yu particulière su ma xarit la woon su te su ma moom dafa dañoo meloon ay morom ñu baal ma ci kàddu gi dafa ma doon woo di waxtaan ak man foo xam ni defe naa ni ay mbërëm duñ ko fekkee te bokkuñu écrit te yaakaarul ci man dara kon loolu tey yoon la ma seedal ko ko mi ngi ci dëgg maa ngi ci fenn di ñaan yàlla rek yàlla mi nga xam ne ni moom mooy teeru nit ci àjjana moo moom àjjana àjjana yàlla rek ko moom du nit nag doomu aadama mënoo fexe ba yóbbu nit àjjana na leer yàlla mi ko moom ñu ngi koy ñaan yàlla mu dugal ko fa yàlla mi ko moom mi ngi koy ñaan yàlla mu dugal ko fa bokkaale wuñ nag yàlla moo ko moom yow lay ñaan nga dugal fa sunu papa ji ak ñi mu fa fekk Mor Faram ak ak waa waa làmb yëpp sunu papa loolu li ma def ci moom su ma ko wax presse bi du jeex. non biñ gëj a gisante nag yàgg na parce que man def naa six mois États-Unis ñëw demaat buñ mujjee gisante yàgg na xam ah, man je suis naturel kañ ngeen mooy gisante maanaam la démb du ma ko def nga ñëw gisante nga ñëw tamit mais bi ñu mujj déggante avant may dem la pàkkam boobu feebar bi tëralagul ko nii ñuy waxtaan ma wax ma ñaari baat daan may woone ma a ah, ñaari baat nag doo ñëw ma toog waxtaan comme noonu muy def rek man su ma gisee dama koy ñemee parce que la wax damay demaat damay am fit dana ma man bi ma tolloo fii yow nii nii nii boo defee lii di nga téye la ji man loolu laa soxla te yaa ko ci man dara non daf ma xam sama qualité yéene ma bëgg ma di ma wax dëgg mosuma ñaan cent franc man may xam li war ci moom rek ma wax ko. ginnaaw bi mu feebaree est que mu seeti. waaw benn yoon lañu gisante nag parce que boobu tamit dama nekkumoon nekkumoon Sénégal mais dama am benn dëkk bu ma demoon benn yoon lañ gisante te boobu sax feebaru kii ko woon man parce feebaru sama ginnaaw la woon feebaru sama ginaalo la woon mais nit la koo xam daal man xam naa Youssou xam na doomam ñi ma doon fekk ferkal ci paquet ba xam na su ma ñëwaat damay toog damay waxtaan ba ñii damay jëpp ak père Ousmane Ndiaye xam na li may wax nit ku baax la di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla teeru àjjana yu gën a kawe yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def hmm, jërëjëf ba koo xam ne ci dafa bokk ci làmm président Pape Abdou Fall kenn mënul wax làmm te du ko wax ku mag nag koo xam ne dafa dëdd si làmm muy père Balla Gaye Ndour lan nga mën a wax ci moom inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, c'est on trouve on trouve même pas les mots xamuñu sax lu ñuy wax mais nag ñu ngi fii ci Cambérène ànd ak moom fas yéene ko gunge ci këram gu mujj di ñaan yàlla mu fekk fa yërmande borom bi àllaaxiraam gënal ko addunaam ñaan yàlla ba euh, teg loxo ci njaboot gi di ko jaal Balla Gaye 2 di ko jaal aussi waa géeja way di ko jaal askanu làmb di ko jaal Sénégal yëpp. waaw ñun ñëpp biñ dikkee ci làmb moo ñu dalal. ñun promoteur lañu manager la woon doon dox ci diggante bi du dëgg. kon créer écurie moo ko fi njëkk a def kon defe naa ni référence la mais nag yàlla moom bu dikkee ak ndogalam dañ ciy ànd ak moom. jikkoom ñun ñëpp ñu ngi koy jaale képp koo xamante ne yaa ngi ci biir ak làmb yal na ko yàlla nangul ñaan yi ci barke Seydina Muhammad